jërë ngeen jëf mbokku internetu Feeling Dakar TV ñu ngi leen di jaajëfal seen ànd ak ñun comme niñ ko leen koy defalee chaque jour rek daal di génn ci euh, Ndakaaru dugg ci yàllu Fuuta bi dem fekki Thierno Boubacar Diallo fekkoon ko ci ay anam. comme ni ñu ko daan defee ci seen yenn ci suñu ay émission mu nekk kilifa ñu koy fekk ci àll bi fekk ko ci dëkku cosaanam moom Thierno Boubacar Diallo ñu nar nag waxtaanee tey jii ci li nga xam ni rek njariñu askan wi lay euh, jublu jëm ci wàllum soxla yoo xam ne askan wi am nañ ko nekk ci réew mi wala bitim réew euh, cheikh bi cheikh Thierno Boubacar Diallo ñu ngi lay nuyu.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 Thierno Boubacar jàlloo ñu ngi lay jaajëfal jotaay bi nag jotaay boo xam ne jotaay urgence la ndax soxla si bëri na askan wi itam am nañ soxla yoo xam ne bëgg nañ ko leen ko fajal duñ fi nekk di wër wërloo euh, tey euh, Thierno Boubacar Diallo dama la fekk ak nga yor situation bu garaaw mu fekk fi ay ginaar fekk fi ay pitax euh, Thierno Boubacar lan ngay liggéey ci sequk tiir la ah ndax kii ko xamee xam ni sequk tiir la ak pitax mu weex tàll lan ngay liggéey ci mala yi nga xam ni teg nga ko sa kanam. waaw mala yi ngeen di gis ni lii ku ko bugga bu ñu la ñaanalee juróom-ñaari fan si soxla loo bugga si kattanu yàlla dinañu ko mën a faj parce que nit ki mun ko yàllaa ko mun si ganaar bi daal wala ak patak bi walla sanget bi ngeen di gis nii waaw léegi ndax yii dangay def sacrifice boo bëggee nit euh, aajam faju danga ciy def sacrifice euh, euh, defar ginaar gi ci anam sange ko ko wala nooy def. non loolu dañu dañu def sacrifice dañu ñaan yàlla parce que yàlla yore waaw yàlla def inna fa ad'uuni fastajibu lahum ñaan leen ma ma may leen li di bëgg kon loo bëgg da koy ñaan yàlla am na anam ñu koy ñaanee na waaw da koy def seet amaana ñu seet si teer bi amaana ñu def listikaara amaana ñu seet si ndok ñooñu yoo xamante ne seetu tamit ci jaww ji loolu mooy njëkk si nit fii bu ñu ñëwee du ñu lay xool lan nga la war a lan nga war a def pour nga am sa sa la li nga bëgga ñu mun a ko faj waaw. Thierno Boubacar jàll yaa ngi koy wax sànq bala ngay defaral nit dara da nga koy seet ñaata façon seet nga am sëñ euh, Thierno Boubacar Diallo. waaw seet bi comme li ma la wax sànq rek am na seetu yoo xamante ne dangay def liskaar waaw am na boo xamante ne dañ koy seetal si course bi may yore nii am na ñoo xamante ne dañ koy ubbi teere bi tamit nga seetal ko waaw yooyu yëpp dañ koy def si seet wàllu seet. bu ñu ko di gis wax di wax nit ñi jàkkaarloo nga naan leen nangam ak nangam ak nangam yow da ngay gis ñuy bind ci jaww ji wala. waaw dañ koy gis nit ki comme li ma la wax sa rek bu ñu la seetalee dañu lay gis xam lan lañu la war a defal. sa ko komsa sohlanenga bogga a faj dal waaw comme yàlla kon dafa mel ni comme numéro téléphone boo ko defee comme li nga war a def rek da ngay am li nga war a am waaw loolu yëpp nag dañu lay seetal ba pare comme ni la wax rek man bu ñu la gisee rek wala boo ñu ooyee rek dañu lay xam lan la ñu la war a defal waaw bu ñu la waxee na nga def nga def ko lu ñu la wax si boobaa yàlla dina la jàppale si li nga bëgg a daal parce que ñun mënuñu dara yàlla mun moom tamit si moom lañ teñu teñu yaakaar si moom la teñu la ñu wer suñu soxla waaw. d'accord euh, damay gis euh, sànq booy defar da ngay yëngal euh, li nga xam ni moo di leket yi nga dajale lu toll ci juróomi leket wala juróom-benni lekket ak yeneen yu ndaw dangay ngay yëngal ba mu fuur am na yoo xam ni boo ko yëngalee du fuur loolu lan lay tekki. waaw loolu lan lay tekki bu dee dañu laa war defar sa aaj bi dafay faj day fuur waaw dafay fuur bu dee na du faj du fuur dangay yëngal ba sona du fuur mhm. foofu la ñu xamee kii su boobaa dañu lay tettal fan nga war a dem fajuti bu dee wàllu am na lu lay mett wala dafa am lu la jàpp wala dafa am looy bugg si wala papier ak leneen ak leneen waaw door a laa wax lii ngay fay ñun sax am na ñoo xamante ne da leen di ñaanal sax ñu laaj dërëm allah ka dañu indi loo xamante ne fooguñu koon sax da gis fii oto yu bari ñuy gaar fii nit ñi ñoo ko indi waaw parce que nit ngay defar yaramu kontaan yàlla dappa waaw loolu moo tax ñun di sonn ni eh, di dimbali ni ñi dimbali jaamu yàlla yi waaw parce que boo dimbalee jaamu yàlla yàlla dafa lay dimbali waaw yàlla defal la dimbali dimbali yàlla na moo gën a di nit mu lay dimbali waaw parce que loolu moo tax yàlla def nañu yaakaar boo yaakaaree si yàlla doo yaakaaree si kenn parce que moom moo ñu mun a régler surtout ma période bi ñu nekkee fii période ñu wax fii crise mondiale lii ak lii waaye na bu dee gom nga yàlla bu dëgëree foofu ngay xamee yaa ngi nekk ak borom bi parce que dafa lay jàppale doo yegg sax coono bi am nii waaw parce que am na ñoo xamante ne ñu ngi si réew bii di sonn am na ñoo xamante ne du comprendre loolu sax du yéeg sax loolu rek si yàlla la loolu moo tax maa ngi sàkk nit ñi nañu sàkk xam-xam lillaahi war rasuuli parce que xam-xam loolu farata la kenn ku ne waaw parce que adduna ay nit ñi ay xeet xeet la waaw loolu moo na xam-xam xale yi dañu war a sàkk si bañ a sonn dem si gaal yi parce que borom xam-xam yi am nañ ci réew bi ñu bari boo gëstee moo tax yàlla na yàlla yokk jàmm bi si réew bi yokk teraanga bi waaw parce que nit ñi bu ñu nekkantee benn rek yàlla dinañu dimbali ñu waaye ñu bu defee lii ay xeeti ay xeeti rek yàlla tamit dafay indi fitna yàlla yàlla musal fitna parce que ñun si loolu la ñu ñaan suba ak ngoon chaque jour yàlla yàlla musal fitna yàlla yàlla musal ñàkk waaw parce que yàlla loo ko bëgg loo ko ñaanee rek mu may la ko waaw loo ko bëgg rek boo ko ñaanee mu may la mu ngi noonu euh, Thierno Boubacar jàlloo buur la ci sunguf ak reen moom Thierno Boubacar jàlloo lu mu lay defal daf lay jox délai Thierno euh, dama fa gis loo xam ni néew na ma ko fi gis muy ay dërëm yu bari laa fi gis loolu ci wàllum ubbeeku da nga ciy liggéey ndax am na ñoo xam ni dañuy xëy seen mbir yëpp tëju ñuy liggéey du ñu am ay clients ñuy liggéey du ñu am wërsëg ndax da liggéey ci dërëm boobu ci wàllu xaalis ak ubbeeku. xaw xaalis li ngay gis nii rek li loo ko ñaanu yàlla rek yàlla dafa lay dimbali si kattan borom bi. ci wàllu ubbeeku. ak wut am am am. ak xam-xam. parce que comme li ma la wax sànq rek nit bu ñu la ko ñaanalee juróomu ñaari fan si kattan yàlla loo bugga da koy am mais na da koy def comme lu mu yàlla wax. day def comme lu muy yàlla santaane yàlla ñu yàlla mu sal seetaane waaw parce que seetaane bandi bu mag la mooy sonal nit ñi waaw waaye na ñu ñaan borom bi yàlla ñu yàlla mu sal si moom waaye rek ñaanu ko rek lu ñu bëgga yàlla ñu ngi am ko si jàmm salaam ngay ñaan am nga xam-xam waaye sa lépp da ngay wàkkiirul ci yàlla ñaan borom bi mu defal la li nga bëgg loolu eh, teraanga ju yàlla defal la tey jii am na ñoo xam ne ci biir teraanga jooju la yàlla defal dañ ci gis seen bopp muy xale bu jigéen bi nga xam ni dafa bëgg am doom taxaw tey loolu ndax boo koy liggéey dafa am dele boo koy jox ne ko jox naa la app bii boo ko defee te sa aada fajul bu ma woowati. waaw loolu am na loolu neuf jours dañu la ñaanal waaw mais nag laata ngay laata la ñuy ñaanal ngay ñëw ñu xool sa mbir comme li ñu la wax sànq rek parce que bu ñu xoolee sa mbir ñu xam. lan nga war a def waaw bu ñu la ko waxee na nga respecté ko si kattan yàlla li nga bëgg dañ koy am parce que yàlla amul lu mu am xanaa lu mu nommul mu am waaw mu nommul lu mu amul lu mu amul waaye xanaa lu mu nommul waaye yàlla boo ko ñaanee rek boo ko ñaanee rek wala yenente bi annabi Zakariya am na diir yu bari amul woon doom dem na ba yaakaare dootul am waaye mu ngi ñaani borom bi ba yàlla may ko yàlla may na ko loolu am na si ñoo xam ni da mhm. am doom waaw loolu bari na alal li ngay gis nii rek ci biti nii ay oto yi ak leneen ak nit ñi ñoo koy indi comme li ma la wax sànq rek parce que ñun bi ñu ñëwee dañu lay faj ba nga gis li nga bëgg nga door a ñu fay. xam nga boo ñëwee maana waaw defal lii ak lii bis sangam da ngay am lii boo ko respecté rat yàlla dafa lay dimbale nga am ko. ki nga xam ni nag moom euh, toog na daa am faru rab ñii am gelu gelu rab ku ci mel ni Bamba moom dafa të am jabar tey ki nga xam ni dafa ñëw ne la dama bëgg borom kër wala dama bëgg soxna nan ngay def ak moom. waaw loolu tamit daf koy ñaan comme li ma la wax sànq rek nit ñëwee ñu ñaanal ko ñu seet xam mbiram bu ñu la ñaanalee rek. bu dee dañu la da nga war a jàng eh, quraana bi parce que am na ñoo xamante ne danga koy eh, war a wàccale kaamul bi ñu soog a xam am na ñoo xamante ne dangay jàngal ki eh, maanaam suuratul fa waaqi waaqiyatu wala falaqi ay naas ak yeneen ak yeneen loolu yëpp bari na si téere bi nga xam wala nga ñàkk xam waaye boo gëstee borom xam-xam yi dañu la ko xamal si boppam nga mën a dimbali jaamu yàlla yi mm-hmm. waaw comme noonu rek. d'accord euh, Serigne Boubacar Thierno Boubacar jàlloo tey ma gis fi pitax te ku gis pitax xam ni dafay naaw moom la tubaab tuddee oiseau ñu daal di koy euh, wutal li nga xam ne moo di avion dàkkante la ko ko tey ji avion nag boo ko tuddee xel day dem ci ñi nga xam ne dañu bëgg a tukki Thierno li ngay liggéey ci wàllum këyit ak papier ku bëgg nekk Europe jóge ñibbi soit Sénégal ku bëgg a nekk Sénégal bëgg a tukki eh, Europe ñaata jour nga koy jox boo ko liggéeyalee. neuf jours rek spectacle bi ngay bis ñun foofu la ñu lay ñaamal na lu ñuy boole ak moom na am na ñu war a boole si moom comme bi ñu la seetalee mais bu ñu ko boolee ak si kattanu yàlla ar papier nii doo dem rangi sax. waaw comme li muy naawee nii. comme noonu lay yombalee sa yoonu bii pour nga naaw dem doo gina ngay gis sax ñoo xamante ne dangay tase ak benn kilifa rek mun a may na la visa dama parce que ñaan bi nang na waaw foo bëgg dem dafay yomb bu ñu la ñaanalee si dee bëgg a bëgg a ñëw si wàllu dem moom naaw ci kaw bu ñu la ko ñaanalee rek si kattanu yàlla yàlla dafa lay dimbale nga dem. Thierno Boubacar jàlloo ba tey ñu ngi ak yow jàkkaarloog yow nga yor xam-xam yom ay teraanga jagleel ko askan bi ci wàllum li nga xam ni moo di nopp ba tey tey maa ngi la koy wax sànq xam naa euh, su ko gaa yi déggee dinañ ñëw seet si la ki bëgg am soxna ak soxna si nga xam ni dafa taxaw bëgg am borom kër mënu fexe ba am ko yaa ngi ci def ay résultat waaw loolu am na loolu euh, am na dañ lay koy ñaanal neuf jours loolu suuratu Yuusuf la woon. bu ñu la yàlla dimbalee ah bu dee xam nga xam-xam wala nga gëstu borom xam-xam bu ñu la ñaanale si yooyu loolu sax sept jour wala neuf jours lu ma gën a gàtt gàtt bu ñu la xoolee xam li nga war a def saraka bi nga ñu la war a defal bu ñu la ko defaree ah bu dee wàllu sonn danga bëgg am jabar dafay yomb wala yow dangaa bëgg a jëkkër loolu dafay yomb comme li ma la wax sa rek lu munte nekk rek boo yaakaaree si yàlla rek di ko ñaan rek boo ko ñaanee comme li mu la bëgga comme yorom bi ni mu santaane nga ñaanee ko comme noonu li nga bëgga da koy am doo sonne sax comme li ma wax sànq parce nit ñi am na ñoo xamante wax dañuy sonna mais am na du ñu sonna parce que boo nekkee si tool yàlla rek yàlla nekk sa tool maanaam ko misal bi comme noonu rek la lay expliquer daal borom xam-xam ñi boo ko misalee rek dafa lay xam waaw. d' accord Thierno Boubacar Diallo am na ñoo xam ni cat ak làmmiñ ak bët moo nu sonal yaa ngi yëngu ci yooyu. waaw loolu moom comme li ma la wax sànq rek ay cet ak lammi loolu dafa yëmb si borom bi rek loolu ay suratu fatiha da tere yooyu ay falak ay naas ay yooyu noonu hmm? boo ñëwee bu ñu la ko booralee comme lu ñu war a defee ak si ñoom si yàlla suñu kattanee la lu la def day dañ lu ñu la def bu dee de nit moo la ko def wala jinna lu munte nekk si kattanee la bu ñu la ko jaa ñaanalee si yooyu noonu comme lu ñu la war a borom bi comme lu muy santaane dangay wer waaw même bu dee foo mënta nekk sax foo mënta nekk si àdduna boo ñu wooyee rek bu ñu la defaree rek comme mu la bu ñu la ñaanee rek ne lay yegg si yow waaw. am na xam ni seen wàllu liggéey mënuñu faa yàgg fu ñu liggéey rek ah, bu ñu fa toogee ab diir dañuy daal di jóg day mel ni dafa am lu leen di dàq a ah, tey nit man nga ko dëj ci place. loolu comme la seytaan la rek ay seytaane moo koy def mais loolu yëpp ay ñaan la comme li ma la wax sànq rek parce que seytaane dafa bari boole bandi bu mag la yàlla na yàlla musal si moom waaw te fii parce que moom defoo bëgg a fagal yàlla na dañu bëgg a nit ñi am jàmm waaw am jàmm am xam-xam am teraanga yàlla dafa bëgg a nit mu bañ a sunna mais nit ñi dañu bëgg a sunna parce que nit boo toppee àdduna rekk boo toppee àdduna da ngay sunna parce que yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defa wax yee àdduna ñi nga xamante ne yaa ngi sunna topp adduna yàlla aduna sonal leen da ngay sonal waaye boo tekkee si si jaamu yàlla comme li ma la wax sàkk rek nit ñi xale yi dañu sàq xam-xam ah xam-xam lu gara gëstu la parce que boo ko xamee yow di nga am njariñ sa bopp ni nga njariñ tamit askan yi xam nga loolu moo gën a baax waaw boo njariñee sa bopp nga njariñ nit ñi tamit alhamdulilahi rabbil alamin comme li nga gis nii boo gisee nit ñi ñëw fi malaay ñëw fi may dimbali fekk yorul deren sax di ñëw ba jàlla oustaz ma ngi sonna lii ak lii aw ma dara ma ne ah yàllaa yore yàlla dafay ma koy jàppale di ko def allah ka dafa may indi lu raw li ma foogul woon sax mu ne ma oustaz ma ne lii bari ma ne non jëlal lii parce que bi ma ñëwee fii ma ngi woon sonna yaakaare ma woon dinaa weer sax wala yaakaare ma woon dinaa am sax mais yàlla def nga si yàlla ko ñaan nga ba yàlla def ma am man tamit war naa la delloo lii moo tax d'accord ci wàllum euh, ngóora am na ñoo xam ni dañuy gaaw a yëg seen bopp nekk ay góor du ñu mënal seen bopp dara ndax yaa ngi yëngu ci wàllum euh, li tëddee tuddee puissance sexuelle. waaw loolu dañ koy yëngu comme lam tamit ba ñu la ko ñaanaree rek maanaam sept jours si kattan yàlla dangay wér waaw dangay wér mais laa laata loolu yëpp dangay ñëw ñu seet la waaw ñu xam sa mbir bi sa programme bi bu la seetalee rek su boobaa dañu xam waaw lan moo la jàpp lan moo tax nga am loolu parce que am na ñoo xamante ne loolu da leen di dab ba ñuy juddu amu woon loolu léegi jàkki-jàkki rek affaire bi jàpp ko léegi-léegi parce que xale yi am na ñoo xamante ne du ñu moytu léegi-léegi ñu dox guddi tase ak jinna tase ak seytaane ah am na parce que nit ñi seytaane si nit ñi lañu bu tamit wala ngay gis xale fii di def loo xamante ne topp ku ku war woon topp ba seytaane dugg seen diggante moo mun a ah, xaral yow dinaa la woon du nekkuñu si ay morom moolu moo tax dafa war a sax xam-xam dafa war a moytu tamit waaw ñu leen di ñaan xale yi nañu moytu waaw nañu sax waaw parce que loolu mooy gandaay góor waaye nag boo demee boo yàlla natt la tamit nga am fitna bi waaye boo ñëwee rek si kattan yàlla dinañ ñaan bu yàlla tegee ko waaye nag bu ñu tegee ko tamit nga moytu tamit de waaw loolu la ñaanu askan yi nga moytu tamit Thierno gannaaw bu ñu jugee ci wàllum xam-xam beek reen yaak sunguf si tey fii réew toll ku ci mel ni Ousmane Sonko bëgg a nekk candidat jëm ci élection présidentielle bu 2024 wala sax am ñañam ñoo xam dañoo bëgg a nekk candidat tey jii ndax yaa ngi gis Ousmane Sonko di ko ñaanal. jamono yi kay ñu ngi ñaanal ñëpp képp ku nekk si prison ñu ngi leen di ñaan yàlla yàlla def mu génn. képp ah, waaw waaw yàgg yàgg dina génne. si kattanu yàlla suñu borom parce que loo gis rek ay natt la yàlla dafa lay teg nit si natt rek comme maanaa loolu la daal mais affaire nguur rek affaire aduna rek la waaw jaruñu ay koccoo ak loolu ñu ñaan yàlla koo xamante ne képp koo xamante ne dinañu dimbali réew bi dinañu peuple bi yàlla yàlla jox ko nguur bi loolu la ñu ñaanu yàlla képp ku ñu ñoo fii fekk ñu ñun tamit lu ñu yàlla may ñu ko ñaanal waaw parce que comme loolu rek jërëjëf mbokku internetu Feeling Dakar TV comme ni leen ko waxee à chaque fois ñu dem seeti ki nga xam ni moo di Thierno Boubacar Diallo mu defal leen ay ñaan saafaral leen seeni tawat ah, tey jii nag lañuy ñuy daal di rek daaneele fi nga xam ni moo di kaddu yi di leen wax ni képp koo xam ni bëgg ngaa jot Thierno Boubacar Diallo nga daal di rek euh, xool ci numéro yi nga xam ni moo ngi daw ci euh, barre de l'écran bi bu ko defee boo woowee Thierno Boubacar Diallo dina faj sa aajo Thierno ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf.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 parce que allahu la ilaha illa hayyul qayyum la taaku shin lahu ma fi samawati man zala yasfa min dawla azin yàlla ma bayna kalfa wala gis wasi akursu samawati wala ulihi fi sama wax wala min azin barki allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ukula al-katim nasir rabbana asir haq bil haqi وعلى آل الله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إلى العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام في الدنيا والسلام في الآخرة والسلام على المرسلين الحمد لله